waaw salaamaaleykum mbokk chers internautes yi nga xam ne yéen a ngi safoo di seetaan KSTV bienvenue dans votre chaîne KSTV bienvenue dans votre émission Mon ASC tey nag Mon ASC ñëwaat na fii nga xam ne moo di ASC Entente 2000 seet si waat leen Entente 2000 nag équipe bu mag équipe boo xam ni vraiment ken dootu ko laajte Entente 2000 nag ren dem na fii nga xam ne moo di finale zonale vraiment mu nekk loo xam tamit c'est à saluer c'est à féliciter waaw du ma wax lépp damay bàyyi ñi nga xam ne ñooy dirigeants yi. ak ñi nga xam ñoo di joueurs yi ak supporters yi wax nan nañ def tey jii vraiment ba def ontel tel exploit léegi nga xam ni moom laa toogal dama koy bàyyi présenté wax ñu moom mooy kan sëñ bi noo tudd. Euh, salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu mbokk internautes yi di nuyu waa KSTV di leen jaajëfal ci dalal bi ñu dalal bon man nag euh, Bara Dieng laa tudd di vice président aussi tam chargé des finances bu ASC Entente 2000 ok. waaw ah, merci beaucoup grand Bara léegi sëñ bi yow mun nañoo xam tur bi. waaw man maa ngi tudd avant tout maa ngi nuyu di leen sant baax di leen gërëm di nuyu waa quartier bi yëpp di nuyu waa télé bi di leen jaajëfal di leen wax as leen ak jàmm salaam man maa ngi tudd Mouhamed Fall ñu gën ma xamee ci Petit waaw waaw ñu gën ma xamee ci Petit Fall waaw le grand Mouhamed ñu gën koo xamee si Petit waaw bisimilah su ma noo tudd. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yi fi toog ñëpp waaw di leen jaajëfal tamit yéen. maa ngi tudd Malle Samb quoi waaw di supporter ASC Entente 2000 waaw. d'accord merci kookoy grand Malle Samb sëñ bi bisimilah noo tudd tribunal la. waaw man maay capitaine ay ASC Entente maa ngi rafetlu seen taxawaay di leen jox seen wàccuwaay bu wër xam nga di rafetlu xam nga xale yi lu def affaire yooyu noonu xam nga lii dañuy gën a motiver quoi di jox seen wàccuwaay. mën ah? man maay capitaine bi. Ah, maa ngi tudd Kémo ñu ngi xamee CFO di supporter ASC Entente 2000 di leen ziar bu baax di rafetlu seen ñëw fii si Entente 2000. d'accord ok merci beaucoup comme ni ko gisee c'était la présentation léegi nag dañuy jublu ci question yi ki ma koy njëkk adressé mooy ki nga xam ne moo di grand Bara tey jii Bara en tant que euh, membre ce staff bi vraiment ban travail ngeen abattre jusqu'à ce que ngeen mën a yegg si fii nga xam ne moo di final ci nawetaan bu 2019 bi. waaw maa ngi la jaajëfal ci question bi mais juste rek dama bëggoon revenir tuuti ci. Euh, historique bi en tant que 2000 tant que 2000 boo dee seet ASC bu bu ndaw la ci ay at ndax ñu ngi judd 2000 comme notre notre nom l'indique euh, euh, suñu première participation en phase navétane ñu ngi ko def en 2004. en 2004 2004 ñu jël kat ñu jël suñu première participation ñu jël coupe en catégorie cadette 2005 ñu ñëw participer waat jëlaat coupe catégorie senior. jëlaat coupe kat euh, asafla finalu euh, catégorie cadette daal di koy ñàkk waaw boobu ba léegi nag bon ñu ngi doon nekkoon euh, zone bu Caaru Géej waaw depuis 2012 nag ak réforme bi nga xam ne dafa am ci côté ONCAV ci la ñu transfert transféré indi ñu zone 9 mooy zone 9 bu jàmm gën 2012 waaw. vraiment merci kooku moom mooy grand Bara li mu wax tamit dégg ngeen ko am na solo trop léegi grand Mohamed yow it dañ lay laaj. Euh, en tant que membre ci staff bi yéen nan def tamit tey jii ba yegg si fii tamit. waaw li ñu ba ak si fii mooy yoon bi yoon bi metti woon na trop nag mais dañoo gëm sunu bopp euh, ñu ànd ak sunu waa quartier bi nga xamante ne xale yi nga xamante ne ñoo bëgg ASC bi ñu àndandoo du liggéey mu metti woon trop bon ñu si ñu ñuy góorgóorlu di góor góorgóorlu di góor góorgóorlu ba yàlla indi lii tey ñu si sant yàlla bu baax nag. parce que gënoon na fi metti nii mais lépp rek ñuy delloo suñu xel si yàlla man dama laan wax saa su nekk suñuy uti ndam yàlla nañu ko yàlla may bu gënee si ñun bu gënee si ñun ak yàlla ko yàlla may ñeneen mais ren bi mu jotee suñu ndam yëpp booy xool amul benn yoon boo xamante ne maanaam ñi ngi dem stade di si am tiitaange wala njaaxare dañuy dem day maanaam day yomb daal. wax dëgg yàlla ñu siy sant tamit waa quartier bu baax a baax a baax a baax ñëpp ci dugal seen loxo. waaw ah, vraiment kontaan nañ trop ñooñu ñoo nekk ñi nga xam ne ñooy membre staff bi dégg ngeen li ñu wax si seen vraiment préparation avant ñoo yegg si fii nga xam ne moo di final bi léegi damay jox kàddu ki nga xam ne moo bokk ci supporters yi mu wax ñoom tamit en tant que des supporters en tant que des hommes de l'ombre nan nañ def tamit ba pousser équipe ba mu yegg si fii. équipe bi moom niñ def ba pousser ko daanaka lenn lañ ci njëkkee quoi bëgg suñu équipe d'abord waaw xam nga nit ki moom lépp looy def boo ko bëggee rek loo ci munti def rek doo ko yëg waaw ñun dañoo bëgg suñu équipe jar mu jaral ñu lu nekk yàgg nañ ci dégg lu nekk nag waaw équipe bi amul doole amul kii amul laa mais ren la yàlla dogal suñu finaal waaw parce que ñun nit ñi ñooñu ñooñu gëmul rek mais ñun dañoo gëm suñu bopp ne gëm ne fépp fu équipe di dem ñun gëm nañ ne équipe suñu équipe mu dafay dem quoi parce que entente euh, dafa dafa ndaw dafa ndaw ci ci tour boo boo ci tour rek boo nee entente ci yeneen équipe yi par rapport ak yeneen équipe yi quoi boo nee entente gars yi dañuy dañuy dañ lay xeeb mais ren bi bi ñu waajee ba ñëw ba dugg ci ci géew bi foo ne entente tey gars yi dinañ ko jox cër bu baax a baax parce que waaw am nañ li ñu war a am yëpp ren taxaw nañ fi ñu war a taxaw yëpp di ñaan yàlla nag moom may ñu ndam ci final bi ñu jëm jëm quoi. Euh, damay jox kàddu gi beneen supporter bi rek mooy mu xool lan la ci yokk tamit par rapport ak li saa waay wax. waaw saa lu mu wax rek mooy euh, boo gisee entente 2000 boo gisee entente 2000 gars yi dañ koy jàppee équipe bu ndaw te entente équipe bu ndaw quoi ñun mun nañu wax ni entente yàgg dañ ko xeexal fépp mais boo gisee entente yegg si fi mu yegg si bi dañ koy sant suñuy dirigeants yi di sant tam suñuy joueurs yi parce que tamit dañoo déggal seen i dirigeants su waree tamit jëlee nañ si rôle bu mag taxaw nañ fu nekk dañuy dem terrain fu équipe bi dem ñu ngi fa taxaw ñu demee stade tam dañuy yëngal joueurs yi yëngal suuf ñu yëngal si kaw kon dañ koy sante bu baax yàlla di wax nag gars yi nañu nañu nañu nañu nañu xaare fu sori quoi parce que ñun dañoo dañoo xeeb bu ñu entendre dañu naan entendre non entendre du équipe bi dem quoi. te ñun dañuy liggéey ñu liggéey bu baax a baax a baax dañuy liggéey fu yi foogeewul ñu ngi liggéey gars yi ñuy tëdd ba guddi sax gars yi ñu ngi liggéey pour ASC mun a dox kon ñu ngi sant bu baax suñu dirigeant yi di santaar bu baax suñu joueurs yi. léegi damay jubluwaat si ñi nga xam ne mooy waa SAF rek di leen wax ni il paraît que da ngeen am benn problème ak seen équipe adverse bi ngeen doon footballal si demi-finale muy Diacksao 1. waaw bof xam nga depuis moom. Ah. en tant que demi saa yu football par dañ koy def réserve loolu mooy loolu mooy nawetaan quoi mais cette fois ci c' est un peu moom moo gën a grave tuuti parce que c' est comme si dañuy néewal doole tuuti quoi waaw ndax euh, dem nañu première instance ñu duma leen xam nga duma duma équipe bu mag. parce que Diacksao nee na équipe bu mag la. avec tous les moyens yi mu disposé yëpp. nga dem football équipe bu ndaw bi mel ni en tant que 2000 la ci terrain nga wulutiku dem évoqué ci ay këyit mu dóoraal la waat nga yéegaat ne danga koy koy évoqué waat euh, fële euh, euh, au niveau de l'ODCAV. merci le le grand Mohamed léegi dégg nga li Baara wax yow en tant que tamit membre de staff bi yow it selon noo mën a jàngatee affaire bi parce que vraiment situation bi tamit doy na waar. waaw situation bi doy na waar trop mais waa Jaksaaw dama leen wax nañ gëm yàlla gis nga su tuur bu jotee amaana di nga sonn mais du bari te suñu borom day ànd ak yow. ñoom la ñuy jéem a def nii yëpp affaire de affaire de xaalis seen ko xaalis seen ko teg te jamono ju ñu nekk di boo mën naa ne ñenn ñi ngay corrompe ci xaalis ñu ànd ak yow mais bareetut parce que ñu léegi seen ngor na nañuy demee. ñëwaat si ki nga xam ne moo di capitaine bi euh, yow en tant que joueur vraiment ak bi nu mu demee nii yow psychologiquement yow vraiment nu noo koy dundee nii actuellement. non neexul moom neexul xam nga nga gagné sa demi finale war a préparer sa finale bañ ne la une semaine moo si des ñuy andi affaire de réserve yooyu noonu ah, man yooyu sax newul sama domaine quoi man yooyu newul sama domaine mais am na lu ma si jot a dégg parce que man man maay capitaine bi man maa demoon présentation mais ñoom affaire bi la contraire la waroon nekk ñoom ñoom ñoo def réserve ñoom ñoo waroon daanu parce que man preuve yu ñu am si ñoom moo gën a leer mais gars xaw ma nu def foofu parce que affaire la. xam nga di wax nag waa zone ñu jël seen matukaay rafetal seen image quoi. xam ne mooy supporters yi léegi gis ngeen vraiment yéen a ngi waaj match bu rëy muy final final ku ne xam na ni kenn du ko joué dañ koy gagné. te vraiment Jaksaaw de ñu bëri xam nañ ko ci zone bi nañ ko tamit nekkul équipe bu tuuti du da nga ñëw jaar ci kawam yéen en tant que euh, supporter nan ngeen di waajalee match bi tamit pour mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo di seen joueur pour ñu gagné match bi. waaw turu turu boo nee boo nee Jaksaaw li muy li muy li muy li muy représenté day day rëy quoi. Ah. boo xoolee ñun ren équipe yi ñu daanaka ci ci zone bi yëpp ñun ñoo ñun ñoo toogloo équipe yu mag yi équipe yu mag yëpp ñun ñoo leen toogloo pour toogloo Jaksaaw nag wala pour gañee Jaksaaw ci final bi du du doon lu yomb mais wallahi lii man maa la ko wax bu neexee yàlla suñu borom ah di nga ñëw fii ne ne waxoon naa la ko quoi Jaksaaw Jaksaaw dañ koy faj dañ koy faj ba mu ba xam fi muy fi muy jaar bu baax sax ni ñu fajee un bi noonu la ñuy fajee deux bi jeg saaw du ñu jaaxal wallaay jeg saaw jaaxaluñu un bi lañu lañ faj ba muy tëdd di jooy deux bi tamit dañ koy fajaat ba mu tëdd di jooy ñu dem départemental lëmbe foofu ren ren zone bula bi mooy lëmbe fépp zone bula la ñu wax su ma amee gan sax buy ñëw ah naan ma dama lay seet ma ne ko solol zone bula parce que boo solul zone bula doo dugg si zone bula moo fi xew waaw ren entente moo xew nañ ko nangu entente moo xew te final bi ñuy wax ak dañ koy reporter ak yooyu noonu pour affaire réserve bi nii ah ah. waaw yow du jàpp final bi ñoo koy fubal ah bu neexee yàlla final bi entente mooy mooy yëkkati pot bi ñoo ñu teg ko fii ci monument bi waaw fii nag lañ koy feetewaat jour boobu ñëwaatal fii maa la ko wax fii la. léegi damay bàyyi ki nga xam ni moo di président bi mu présenté wu au moins ñu nuyoog moom président ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. leen bu baax a baax la wax ne namoon nañ la depuis boobu. <laughs> waaw dëgg la dëgg la xam nga rek yitte yi moo xaw a tar yooyu rek. moo tax gisoo léegi sax bi may baari di woo dama na ko xaaral ma bàyyi li may def ñëw. waaw parce que comme sa askan moo soxla donc da bàyyi lépp ñëw teew loolu moo fi tax a teew donc comme nu ma ko waxee rek may présenté wu. donc man Touba Fall laa tudd donc may président entente Entente 2000 waaw ñii nag samay collaborateur lu ñoo ànd yàlla boole ñu donc ba lii am kon donc vraiment dañ ci sant suñu borom. vraiment président ñoo ngi lay siyaar bu baax di la nuyu bu baax tamit di la jox sa wàccuwaay léegi damay jaal si ki nga xam moom moo président présidente commission féminine bi di ko di ko bàyyi woon présenté wu soxna si tur bi maa ngi tudd section féminine bu ASC Entente 2000. si prési léegi nañ ni vraiment leen entente dem na fi nga xam ne moo di final d' abord di la bu baax yaak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ñëpp si liggéey bi di la encouragé waat bu baax tamit di la ñaanal yàlla ndam li ñëw fii incha allah. léegi di la wax ni vraiment lan nga def vraiment ba mën a pousser équipe bi bañ yegg si fii en tant que président. waaw xanaa di rafetluwaat rek kàddu yi di sant sunu borom moom mi nga xam ne moo mën kenn mënul donc di wax ne nag dugguleet sa pas la première fois ñuy dem finale donc en 2005 yàlla suturaal la ñu bañ dem finale jël coupe kon sunu borom bu ko tollamte itam dañ koy gën a santaat rek parce que moom rek moo mën waaw parce que xëy na métti woon na 2005 ba léegi boo xoolee 14 ans jaar na fi. xale yoo xam ne ñoo dëkk ci même quartier bi ñoom ñoo porté volontaire gëm seen bopp ne ren moom incha allah dañuy def le tout wakilu suñu borom moo mën mu jàppale ñëw te suñu borom nag kon ñoom pas-pas bi ci amoon suñu borom jàppale leen ci ba am. parce que nag tey fii Entente toll nii pour vous dire ne kenn sóoraalu ko woon ci dara mais gëm sa bopp la rek gëm sa bopp rek chaque jour bu ñuy demee sax toog réunion en zone wala kii dañuy wax naan Entente nii parce que man yàqinu naa que ne ba ñu amee benn tournoi ñu am ko sunu borom jàpp la ñu xale yi góorgóorlu ba yenn tournoi bi ci laa amoon rafet njort que ne ren mun nañu sori te suñu borom jàpp naa ne rafet njort boobu mooy dox ba léegi te suñu borom am jàpp naa ne mën nañu jàppale ba coupe bi incha allah ñu indi ko fii ci mu nekk ndam lu sedd guy. prési yow gis ngeen ni euh, ren entente dem na final yow en tant que président de commission féminine nan ngeen di waajalee ak yëpp. dañuy euh, sant suñu ñaari waajur di wax ni ñun dañoo am fierté ci suñu ASC te depuis suñu match de poule xamoon nañ ni ñun macha allah waajal nañ ko comme ren moom dañoo pare pour indi ndam li entente dañ koy waajal comme nu ñuy waajalee rek euh, yeneen match yi di waaj suñu final di ñaan yàlla yàlla nañ suñu borom may ndam message bi may lancé nag mooy comme ni ko sama trésorier waxee léegi muy Mouhamed cest à que. ASC yi nekk ci zone bi dañoo xam ne ñu ñëpp benn lañ actuellement nekkatul entente mooy daje ak Diacksao 2 donc c' est la zone problème zone la kon dañu jàpp ne ñun ñëpp ñoo war a fédéré àndandoo def une forte mobilisation dem nekk ci ginnaaw joueurs yi xoolal toj ko ba mu toj yàlla suturaal ñu jàppale ñu vraiment ndam li comme ni ko di waxee rek bu dee nekk na li gën sunu borom jox ñu ko ñu indi ko ci jàmm salaam leneen lu gënul tam ñu xam ne sunu lu mu def xam ne loolu la gën donc ñu wax ne donc dañuy ñaan muy supporters yi muy képp ku demee stade na ànd ak discipline parce que nag discipline bu la bu la discipline lu mu lalu rek dara doo ko am te nag ci fair play la ñu mës a xam entente parce que c'est pas la première entente jël na trophée fair play kon donc cest à ci sens boobu la ñu koy xamee kon nañ demee ci loolu depuis boobu ñuy déggee ba léegi di dem mosoo dégg ñu ne entente lii wala laa wala naka su dul noonu dal la àndal. gëm lu muy def def lu muy def ànd ak jàmm ak salaam dem ñibbi kon donc ñu ngi yaanu que ne ñu ñëpp daal nañu jàppoo nekk benn que toute la jeunesse soit derrière l'ASC en temps 2000 ñu àndandoo jàppoo le jour ji yàlla sunu borom jàppale ñu indi ndam li fii. waaw c'était l'émission mon ASC avec euh, l'ASC Entente di remercier waa ASC Entente yëpp di remercier suñu internautes yëpp di leen wax ni incha allah di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen i si yeneen i jamono incha allah. Euh,